nuyu baax di leen siyaar di leen jox wàcc waay bàyyi daaru la di wax ni ñoo ngi nii si forage su Serigne Saliou Jannatul Mahwa mu mel ne forage bi dafa amoon jafe-jafe ay câble taxawaay bi nga xamante ne monsieur le maire Abdoulaye def na ko ci taxawaay la boo amoon solo la jàpp naa ne forage bi lim ah, ah, ko forage bi ah, nii di ko waaj a monté naa ne bu ko monté rek lépp dina saafaraw taxawaay bi nga xam daal moo war monsieur le maire ci ndoxum Touba bi xam ne sëñ bi da ko jox ndigal mu jàpp ci lépp lu mu ci man dana ko def ndax moom bëgg-bëgg sëriñ bi rek day déglu jaa ngeen jëf